Euh, dañ fi am ay barab ñu euh, dina fi dina fi jàppale mbokki jullit yi ci seen wàllu diine ci ndigalu sëñ bi ba li ko tàmbalee ci ñi munta euh, jàng alxuraan ñoom su fee tàmbalee ñu leen jàppale ba man di fere ji bay mën a mën a jàng alxuraan ba fa leen fa leen fa suñu borom mën a àggale ci aas bu mën a doon tamit am na fi ñu koy taxawee waaye tamit njàngum diine mi njàngu majalis am na fi ci wàll yëpp mboolem téere yi sëñ bi nga xam ne moom moon waxoon ne naa leen garanteel jàng bindal leen loo xam ne dangeen ci xamee seen diine téere yooyu bindoon te murid bu ne war ci jéem a xam diineem am na mbokk yu ko fi taxawee di ko jàngale ci bis yëpp lu dul alxames ak àjjuma euh, tàmbalee ci quatre quatre seize heures léeg-léeg dix-sept ci niveau yu bare nag mën naa dem ba juróomi niveau yoo xam ne yoo xam ne ñi ñi ngi jàng yeneen téere yi ñi jàng yeneen kon ba képp ko képp ko ko ittewoo ci mbooloo mi rek incha allah ñu xam ne loolu am na fi muy lu jara ittewoo tamit wax dëgg yàlla ndax julli bu nekk war naa xam diineem loolu lu ñu doon jàll rek la di ko jëgle eh, ñi ngi lool rek ci ci ne nit ñi nit ñu jàppee liggéey xaaj lan mooy ñoo xam ne nangu noo liggéey jàpp na rek danoo lu ci yàlla lu wax na lañ ci xaw beneen xaaj bi mooy xam ne eh, kon danoo ëppal ci wutum alal nga xam ne alal dal visé nun ko mën a amee baax na bu dagan baag bu aram ba su ko defee lan cee am di ko jëfandikoo seenu lekk ak seenu naan ak seenu col ak seen dëkkuwaay ak dara li ca euh, lépp ñooñu euh, barkeb la ñuy fàggu suñu borom da koy dindi loolu yéen bi wax lañuy ñuy lu ñu bari bari barke ba la suñu borom di roppi ba mooy xaaju ñaara bi xaaju ñetteel bi mooy ñoo xam ne euh, ñu ngi liggéey dëppale kook sabab yi dagan ni ko sun ni ko yoon digle di am wërsëg wu lew waaye nag àdduna soosu da leen soxal ba ñu sàmm ñu àq yàlla ci sàmm ñu àq yàlla ci alal ji waaye tamit sàmm ñu àq yàlla ji ci jaamu yàlla yeneen yi ñoo ñooñu day perte seen àdduna tamit day perte seen alaaxira man kaana yuridu xarsa laaxirat si loo fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nuti minha wa maa lahu fil aaxirati min nasiib su doon te xam ne maanaam alali àdduna war leen a soxal ba ngeen di fàtte leen war seen borom yaa ayyuha allazina amanu laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an dikrillah kon loolu ñoo ñi nga xam ne xay na lañuy wut lew na waaye waaye yilif na leen not na leen ba ak yeneen ca war defu ñu ko ca waaye ak yeleen war tamit ci yeneen jaamu yàlla tamit ñu négligé ko ñooñu tamit wax nañ ne euh, duñu am texe ak du am texe ak àllaxira xaaju juróom ñeenteel bi nag ci muy mujj bi mooy ñi nga xam ne ñi ngi wut alal ci yoon yi yi dagan yin maye euh, di sàkku ngërëmal suñ borom euh, la ñuy am ñi coy joxe àq ya la cay war ci azaka lépp ña ko cay def waaye tamit di la ëpp seen soxla ñu koy delloo ci yoonu yàlla ñooñu mooy ñi nga xam ne moom la borom wax ne hudu ila tayyib min al xawli la ila sirat ñoo ñoo nekk ci yoonu bu baax bu jubbo kon fi mu war a ab julli fi mu war a nekk daal mooy fi mujj fii war nay wut fàggu di ko fàggoo ci yoon ya dagan ya lew lam cee am tamit lay ëpp ay soxlaama yu mel noonu mu koy delloo ci yoon yàlla ak ja suñu borom am ci alal ci mu ko cee dox mu ko mu ko cee mu ko cee génne loolu mooy xaaj bu mujj bi nga xam ne moom jullit bu nekk foofu la war natt boppam moom la naan rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah wa iqaami sola wa itaa zaka yaxaafuuna yawman bu fihi alqulub wal absar mooy ñooñu nga xam ne commerce ga ak liggéey yi def yëpp du leen soxal walis ñuy fàttaliku seen boroom ci la leen ca war ci ay jàmm yàlla ak i àq ñooñu la wax ne ah, bu ëllëgee amul leen lu ñu tiit Euh, suñu borom moo leen di gërëm kon loolu euh, mooy euh, xaaj yooyu islaam nag soññ lool ci liggéey liggéey ci tamit ay tuyaaba yu bare bare bare li ci li ci li koy tegtale mooy dañuy gis fu bari day dendale jaamu yàlla ak liggéey ci ay ci alquran ay yu bari dañuy gis fu muy dendale liggéey ak jaamu yàlla laysa aleykum junahun an tabtaxu fadlan min rabbikum fi ida afatu min arafatin faskuru aay boobu ibnu abbas day wax ne bu njëkkoon bu aj masaa jot dan daan dan daan bàyyi jaaye commerce ci aj gi du nangoo jaay du nangoo def dara wàll liggéey ci biir aj bi daan wax ne fii jamono yi jaamu yàlla la fan yi jaamu yàlla la kenn du fi kenn du fi liggéey ci la aay boobu wàcc di wax ne amul benn bàkkaar ci ngeen di sàkku wërsëg wu lew ci seen boroom ci fan yi boole koog aj gi laysa aleykum junahun an tabtaxu fadlan min rabbikum kon foofu dendale na liggéey ak aj ci aay boobu noonu ci benn benn aay tamit dañuy gis euh, suñu boroom fu muy dendale liggéey ak ak ak jihaad yoonu yàlla ci benn aaya toll leen benn daraja ne ñi nga xam ne dañuy xëy sol seen dal dugg ci biir dugg ci àdduna bi di wut lu nu am wërsëg bu lew ñoo ñi nga xam ne ñoo gàddoo seen ngànnaay di xeex ci yoonu yàlla ñoo bakki benn tuyaaba bi aaxaruna na fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah wa aaxaruna yuxaatiluna fi sabilillah ñii ñi ngi dox suuf si di wut di liggéey di sàkku wërsëg wu lew ñeneen ñi tamit ña ngay xeex ci yoon yàlla ñoo ñëpp la wax ne digg na leen tuyaaba ju rëy rëy rëy ñi ngi lebal yàlla loo xam ne dana leen ko fay ñoom ñëpp la wax ne mu ngi ko lebal loo xam ne ko fay kon foofu gis nañ ne ci benn aaya bi dendale na ci liggéey ak jihaat te kon xam ne wàccuwaayu jihaat euh, loo xam ne wax na ne bu doon diina bu doon gileem mooy jigéen ba ca kaw ah, mooy jigéen moo ne ca kaw mu bu ko jëlee dendale ko liggéey ci benn aaya bi loolu day wane kon solo soo xam ne euh, jox na ko liggéey am na ko solo lool yéen wax ne wax tamit ne suñu borom dafa teey moo tax dafa bëgg lu teey euh, nit ki lépp lépp lu muy amul lu muy def lu gën liggéey ci loxoom wala njaay moo xam ne mun barkeel la daana wax tamit ne kenn ci yéen jël ay buumam euh, ñëw ca doj wa doj yi ca àll ba rek fexe ba am fa aw say mattam yanu ko ci ginnaawam ñëw jaay ko lam ca am mu doyloo ko faccee soxlaam ak soxla njabootam nee na loolu moo gën ci muy ñaan nit ñi euh, moo xam jox nan ko wala xañ nan ko loolu ba tey mu ngi ci benn xadis yoon si ko wax noonu gis nañ tamit saxaaba yonte yëpp saxaab saxaabaam yëpp euh, bis yonte bi sallallahu toog na mook saxaaba yi am am mbokk romb leen boo xam ne gis nañ ci moom cawarte ak farlu saxaaba yi ne ah kii de cawarteem gi ak farloom gi bu ko defoon ci jihaat kenn du ko gën yont bi na leen bu fekkente ne li ko génne mooy am lu muy dundale doom yu ndaw mi ngi ci jihaat mi ngi ci yoon yàlla bu fekkee tamit li ko génne mooy am loo xam ne da ciy dundal ñaari waajuram ba tey mu ngi ci yoon yàlla wi ngeen di wax jihaat ji ci la nekk ba tey su fekkee li ko génne mooy am sax loo xam ne moom moo koy dundee ngir mën na jomblu ba du laaj ba tey mi ngi ci yoon yàlla euh, xadis boobu mi ngi ci sahih Bukhari ba tey moo tax ab ibn Abbas wax ne euh, mboolem yonent yi fi jaaroon yëpp daanan liggéey amul kenn ku ci mës a ñàkk liggéey bu dee sunu maam Aadama alayhi alayhi salaam ab gorkat la woon daan gor ku bëgg ma mës a moo lay goral yonent yàlla Nuux ab ministre la woon yonent yàlla Idris tailleur la woon sun maam Ibrahim ak yonent yàlla Lut ñoom it ay baykat lan woon yonent yàlla Saalix ab commerçant la woon yonent yàlla Moussa yonent yàlla Suayb ak yonent yàlla Muhammad ñoom ñëpp ay sàmmkat lan woon waaye tamit yonent yàlla Daawud ab tëgg la woon daan tëgg wala alquran di wax ne an amal saabixaatin wa qaddir fi sard ala alal naa lahul xadid an amal saabixaatin wa qaddir fi sard wa amalu saaliha indi ma tamal basir man maa ko nooyalaloon weñ daf ko nooyal ba mu mel ne tiise ji moom mu ciy liggéey ay mbubi koŋ ay mbubi mbubi yoo xam ne mbubi lañ sol bu ñuy moom lañ sol bu ñuy xeex kon ñoom ñëpp gis nga ne kon ku ci nekk amoon na métier moo xam ne moom lañ ko xamee Luqmaan daana dénk doom ne ko Euh, ne ko na ngay dimbandikoo ci fag lu lew fàgg ba am ba am lu lew nga di ko dunde tam moytu ñàkk ndax ñàkk day indi sew sew sa diine andi euh, feebal ci sa xel waaye tamit di yóbbu sa mbañum rus di yóbbu sa jom te li gën a bon tamit nit ñi sax dañ la ci xeeb moo tax saxaaba yonent bi yëpp ñoom ñëpp ku ci nekk ñoom ñëpp ay liggéeykat lan woon dan daan liggéey ni ko sayyidatuna Aysa waxe sayyidna Usmaan biñ koy faat booba li ay tàndarmaam di génne par at matoon na téeméeri junni téeméeri junni ci jamono jooju ay tàndarmaam daana génne sa Abdurahmaan ibnu Awf daana wax ne alal de man lu ma fonk la ndax ci lay ñoŋale sama der waaye tamit ci laay jaamoo sama borom moo taxoon moom it ku ku ku ràññiku woon la ci walla mën a pàggu alal te daw ko yàqal dara ci ay jaam yàlla Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moom day wax day jàpp ne nit ki muy wut muy wut lu lew avant avant ñu koy laaj société bi di ko laaj ndax ku ne da ko société bi da ko dafa njëkk dafa nekk loo xam ne diine moo ko laaj dafa dem dafa jàpp ne moom wut lu lew day farata ab jullit ab jullit amul droit toog bañ a wut lu lew lu muy dundee moo ko njabootam wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahmi jullit maanaam sàkku lu lew moom daanaka baatu liggéey du ko jëfandikoo mbindam yëpp day wax talabul xalaal wala iltimaasul xalaal lay wax sàkku lu lew la koy tuddee fu mu foo gisee baatu ba amal ci mbindam jëfe jëfe jaam jëfe li jëfe jaam yàlla ci jublu jaam yàlla ci jublu waaye bu dee liggéey sàkku lew la koy tuddee day wax ne sàkku lu lew muy liggéey farata la ci bépp jullit loolu fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wahami euh, muy loo xam ne mu am ñaari mbir yoo xam ne tamit da koo bàyyi woon xel lool muy am lu lew lu lew bàyyi woon xel lool ndax daa wax ne lu lew kat mooy lekk lu lew mooy taxa ñu nangu say jàmm yàlla kon fàggu lu lew mooy tax nga am lu lew mooy liggéey mooy tax nga am lu lew lu leew loolu nga am tamit mooy tax ñu nangu say jàmm yàlla ndax jàmm yàlla lu mu bari bari bu fekkente ne lekkoo lu leew kenn du ko nangu même ci lekku leew sax même su bëggoon a jàmm yàlla sax day jafe ci moom loolu wax day jafe ci moom du ko yomb moo tax mu naan nangeen ngeen moytu lekk lu araam ijtanibu aklal xaraami yaa mala falam yazal anil huda mukabbila iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa laa tudxilil xaraama fil batni wala maa fi subhatin bal yaxilla wila kon loolu lépp la wax ne da ngay moytandiku du lekk lu araam ndax dalay jëng ba doo mën a jub bari nañu bari ñu bari dañuy bëgg a jub te la tax mënu ñoo jub mooy la ñuy lekk lu araam la ñuy lekk nit ku ne lam lekk rek loolu lay def hmm? la nga lekk rek loolu ngay def kul ma chita tafaal mislahu mën ngaa lekk loo neex nag waaye la nga lekk rek loolu bu fekkee lu lew nga lekk loolu moo lay pousse ci ngay def lu baax topp yàlla boo dee lekkul araam tamit lu araam rek ci lay mën a rees kon euh, incha allah kon mu demal li tëraloon ci waxtu jeex na ñu yemal fa wax ji rek di euh, sant borom bi sant ci mbokk tamit ci teewlu gi di ñaan li fi baax di jub yàlla suñu borom def ci misaan xasanaat di jëkku salaamaaleykum wa rahmatulah